mbokki internet yi nga xam ni yéenay seetaan 221 info ñu ngi leen di nuyu di leen wax ngeen dal ak jàmm fii ci 221 info tey premier janvier ñu dugg ci at mu bees mi di ndokkalewaat ñëpp ci at mi di ñaan yàlla na yàlla defal ñu ko muy atum jàmm atum xéewal atum naataange sàmm ñëpp sàmmal ñi tamit suñu réew muy Sénégal ki nga xamante ni moo gën ci réew mi yàlla suñu borom teg ko mu doxal li nga xamante ni mooy Sénégal euh, ba mu wéy suñu gaal gi di wéy ci di wéy di féey ci géeju naataange yàlla yàlla defal ñu loolu ci atum 2023 bi atum xéwal atum jàmm atum naataange waaw sàmmal ñu sunu réew daal muy Sénégal nga xam ne amuñu lu ko gën a rëy muy Sénégal yàlla na ko yàlla def ci barke bi tey nag euh, làmb dafa am ñu nag Sénégal làmb mooy sunu cosaan waaw làmb mooy sunu cosaan tey nag làmb ju rëy moo am nar dox ci diggante Boy Niang ak euh, Balla Gaye bu ne Balla gay de la lion de Guédiawaye way Niang moom momit bu joge rek Pikine yep jog waaw bokku na ci mbeur yi ñu gëna a fofu ci Pikine nak ginaaw bi nga xamni mbeur yu mag ya fa nekk ko ñoom presque dem na retraite mën ni Boy Niang rek euh euma sen rek mo fa dess kon tay ji bu ne relève Pikine dañ nan euh Ama balde Boy Niang ñom ñaar essant yi ñoom ñooy ñi nga xamni ñoy relève Pikine tey nag mbër mag lay beurel muy Balla gay de Balla gay de la lion de Guédiawaye way na ni euh mag mi moy may sens rakk ji ndax booy Niang moo féete ndaw kii di Balla gay Balla Gaye moo ko njëkk ci làmb ñoom ñaar ñëpp nag ñu nekk ay mbër yu mag ki nga xamante ni moo di Boy Niang gañe tey jii mooy tax mu gën a dëgëral li nga xamante ni mooy taxawaayam wane ni dugg na ci cour des grands dëgg dëgg dëgg nag euh, dafay bu daane tey jii gay dafay laaj ki nga xamante ne mooy Modou ngir mën a lekk li nga xamante ni mooy roi des arènes kon Boy Niang làmb tey ji làmb ju am importance la ci moom gañe mooy tax mu gën a dëgëral li nga xamante ni moo di euh, palaasam kon jàpp naa ni làmb ji làmb ju am importance la ci moom ki nga xam ne mooy di Balla Gaye 2 gagné mooy tax mu gën a dëgër mooy place ndax moom mi nga xamante ne moom moo may ki licence Boy Niang bi dafa prouvé ba agsi ci moom kon nag li nga xamante ni euh, bëgg na ko mooy jaar ci kawam jàll moom Balla Gaye 2 daf ko war a affronté bañ ba xale bi du fi jaar bu ko defee moom mu gën a dëgëral li nga xamante mooy taxawaayam moom nag amatul mu prouvé ci làmb dem na ba nekk li nga xam ni mooy roi des arènes kon moom dafay may ki nga xamante ni mooy booy Niang sens ngir mu ñëw euh, jàpp ci moom mu jox ko loxo mu yéeg ci kaw mën a daje ak coup de grand Modou bi nga xam ne moom mooy roi des arènes Boy moom foofu la teg bëtam waaye moom bëtam moom tegu ko ci Balla Gaye waaye dafa fas nekk ni nga xamante ni mooy roi des comme ni ko magam Eumeu Sène defee woon mu jël couronne bi ko waa Pikine Eumeu Sène loo euh, Boy Niang loolu mooy waaye Balla Gaye moom li mu koy wax mooy xalaa ma ndiir ba xalaa xalaa doo fi jaar kon tey jii mën nañoo xaar làmb ju neex ju nar diggante Boy ñaa ak Balla Gaye 2 dañu yow seen palmarès na njëkkee ko ak Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 mi ngi gane àdduna le 4 décembre 1986 kon moom mi ngi ci 36 euh, ans moom Balla Gaye 2 euh, mi ngi ñu mi ngi tudd turam dëgg nag mi ngi tudd Omar Sakho làmb ji ci la tudd Balla gay mais turam dëgg Omar Sakho la tudd moom ñu gën koo xam ci la Lion de Guédiawaye euh, mi ngi nekk roi des arènes en 2012 ginaaw bi nga xamanteni dan daan na Yékini Yaxya Jóob Yékini mi nga xamni mom mo fi nekkon roi des arènes fi lol ginaaw bi mu ko daanee nak mom Balla Gaye mi ci la nekk li nga xamanteni mom moy euh, roi des arènes mom nak 21 euh, victoire mi ngi daan ki di Samba Lawbe dam kanji Papa Sow euh, Boulon mam gor gui mam gor Diouf salum salum Bac Seras Boy Sey kolifay Ousmane Diop naka non tam Isa Puy, Mbaye Diouf Tyson Senior Mustafa Gueye modul Tyson Yekini Tafatin Giri Bordo, Bordeaux Modou Lo Balla am 5 défaites Eumeu Sen moko daan ñaar yoon Bombardier daan ko ñaar yoon Isa Puy daan ko ben yoon Mom Balla Gaye de nak dafa année balance woon 2015 2016 euh, mu nek mbeur bo xamni dal mom def na palmarès bu li viis Mom làmb moom Balla Gaye de nga xamni tay ji mom mo nara dajé a ak ki di Boyna euh mom doomu dégol bi mom la balagé de nara a dajeel ñu ñëw ak ci palmarèsu Boy numéro 2. Boy numéro 2 mom 12 victoires la am Modou la en 2008 Dan batessa le 28 février 2009 naka non tam mu daan icon le 1er mai 2009 Dan bis le 21 daan bis le 21 juillet le 21 juin 2009 naka non tam mu daan Brise de Mer le 20 décembre 2009 le 24 juillet 2010 euh, Dolfo le 10 avril 2011 naka tam 2 le 2 juillet 2011 Double 2 le 9 le 9 avril 2012 Baymanjon le 23 février 2014 Gargamboise le 13 mars 2016 tam le 5 mars 2017 euh, mom moom moo daan Sa Thiès di rakku Balla numéro 2 bi nga xam ne moom la nar a bëreel tey jii moom nag euh, mi ngi am lu toll ci 4 défaites ama neex moo ko daan sos moo ko daan ama neex moo ko daan le 27 février 2011 sos daan ko le 8 juillet 2012 naka noonu tam mu am euh, tafaatin daan na ko Lac de Guiers 2 tamit daan na ko moom booy mi nga am lu toll ci 4 défaite Balla gay de am 5 défaite kon dal tay ji man nañu xaar làmb ju neex feulé ci arène nationale arène nationale nak ñom ñaar ñoko seddo arène nationale Pikine la nekk waye Pikine ak way man na ni ben la kon tay mom xam na né arène nationale mom dina fess del del del del inshallah allah ñuy ñaan rek ñu bëree lamb ji jam euh ku yalla suñu borom may ndam rek keneen ki mom démérité wul ndax ñom ñaar ñëpp ay champion lan ku nekk liggéey nga lo xamanteni ni ku ci sa morom daan rek démérité woo ñu ñaan ñu bëri ko si jàmm euh, ki yàlla may ndam ndam li moom du génn Sénégal du dem France dem fenn Sénégal gi lay des kon nag que le meilleur gagne incha allah wéy leen di abonné wu fii ci deux cent vingt et jaa ngeen jëf.